Tu en as parlé. Idrissa, c'est un. Idrissa, je l'ai dit tout je l'ai dit l'autre jour, euh, moom it euh, il faut que mu liggéey bu baax parce que temps yi gisoon naa ni juste avant avant l'arrestation d'Ousmane Sonko gisoon naa ni xale yu bëri dañ ko doon challenger ci internet bi parce qu'il prend des positions très courageuses sa day wax li c'est comme man man damay wax li mer nga kontaanoo je dis ce que j'ai à su ma tëddee man ma nelaw parce que loolu laa gis Idriss Idriss non xam nga tamit affaire bi nekk di liggéey ci suuf wala affaire bi du course de vitesse course de fond la dafa laaj xaalis Idrissa bu fi commencé yëngu léegi ni gars yi commencé indi ay ordonnance ak dafa metti opposition la est-ce na xaalis bi affaire da ngay bàyyi ba ñu ni prip nga départ mais boo nekkee fii di échauffé échauffé bu la na chance parce que d'abord dañu sénégalais yi l'électeur sénégalais il va se dire mais écoutez man Sénégal ñu ngi waaj a dem ci di produire pétrole ak gaz muy lu baax bëgg nañ Sénégal bu dal bëgg nañ Sénégalu jàmm te Idrissa il a toujours prôné la paix Idrissa nekk na te sénégalais dañu bëgg jàmm son discours dafay refléter ak l'opinion le point de vue ak le vécu des sénégalais Idrissa day nekk ci position bu ko ni war bu mu war a déconner sax xoolal deux deux deux mille dix bi ñu Macky jàll Macky jàll na premier tour position bi mu nekkoon am na ñu fa doon nekk dañ naan booy wàcc leen mais d' mais mu toog xam ni mais nekk président de la république c' pas une fin en mën nga da nga da ngay sénégalais ñoo lay wóolu jox la buñ la wóolu jox keneen wala labaj am ñoom ñu toog seetaan moom day toog dem këram te loolu c' était une position responsable bu demoon sénégalais yi jóg leen ñu jóg 10 20 30 personnes dee ci day